tasal ñu nuyoo bi ci mboolem ñi seetaan yàlla yàlla defal nu sutura defal leen ko defal nu dégg ak topp tey incha allah ci laxdari bi la ñuy dellu si waaye sunu ñamal yi dañ koy jëmale ci ñaari yëf bi ci njëkk mooy bis bi nga xam ne jagleel nañ ko daara mu nekk alxames ji dëgmal ak ci àllarba ji ñaari bis yooyu euh, jagleel nañ ko daara ci nguuru président Macky Sall la dooree woon ñu def euh, ñaari édition ci nguuram euh, ren war a doon ñetteelu édition bi incha allah ñu koy amalee fële ca centre Abdou juuf bu jam ñaajo ci àllarba ji ci ay panel yu fay am ay conférence yu bari di fa am ak i waxtaan yoo xam ne ñu ngi ciy seenu njëriñ ndax boromi xam-xam yi nga xam ne ñoo ko war a seq waaye incha allah ci alxames ji mooy bis bi nga xam ne président de la république muy Bassirou Diomaye Faye euh, war na teewee tëjte la incha allah ak euh, waa daara sëriñu daara yeeg ndongo daara yeeg yaayu daara yeeg kuréelu sëñ daara yi incha allah ah, ren nag euh, daaw ak daaw jeeg yëpp amoon na waaye kuréel bi nga xam ne ci la ñu bokk donte ñu ngi ci kuréel yëpp ndax kuréelu sëñ daara moom kuréelu sëñ daara rek la tudd Euh, waaye ñaari at yi weesu yëpp demuñu ca gisuñu ca ndax invité wuñu ca noonu it laa ko waxe woon daaw demuñ ca woon gisuñu ca invité wuñu ca moo tax en tant que coordonnateur u aar daara ñu nag ñu nu nekkal ci liggéey bi ci niveau aar daara mosuñ cee participer ren nag bi muy jublu si nguur gu yees gi bi mu ñëwee première fois loolu ñu saluer ko ñuy boole. Euh, aar daara ak yeneen i kuréel yu ma gis njaawul boole ci liggéeyu daara ñu dugal leen ci jot nañu sunu invitation ci bis bi xalaat yi nga xam ne tamit doon nañ ko amal ngir waajal bis bi invité nañ ñu ci ñu participer ci bu ñu ci invité wutoon tamit nañu defoon rek la ñuy def bu njëkk ba ndax nag euh, nit moom munul lu dul yem fuñ ko loo dem ci mbooloo moo xam ne invité wuñ la ca nga ñëw naan bool leen ma ci loo fa yàq boo fa tojeb kaas yaa koy fay ba tax na li tax ñu ubbee ko mooy yëgal leen ne bis boobu incha allahu taala aar daara bi nga xam ne man mii toog di wax la yàlla nattoo ñu sant ñu ngir ñu coordonné ko yëgal nañ ñu bis bi yëg nañ ko ànd nañu ci waajtaay bi ñu yëgal nu ko amal nañ ci sax réunion ci niveau aar daara di waxtaan ci lu jëm ci wàllu bis bi ak projet modernisation des daara bi nga xam ne nguur gi bi mu ñëwee yëkkatiwaat nañ ko tàmbali di ci waxtaan donte projet modernisation des daara bi tënkaguñ ci dara démb rek mi ngi am journaliste yi moo woo ne dañoo dégg ne dañuy bëgg vote voté ji wala dañuy bëgg a yóbbu projet de loi bi ma ne ko yëgaguma ko li ma yëg daal mooy amal nañ ci waxtaan première fois ci projet bi ñu ñu ci invité ci waxtaan dem nañ ca fekke nañ waxtaan yi ñu ci njëkk amal ca Mbuur bëri na yoo xam ne mi ngi ci projet bi sëñ daara yi ànduñ ci nañ ci ñàkkoon a àndee démb ba tey noonu lañ ci ñàkk àndee joxe nañu ay xalaat yuñ ne danañ ko jël ñu segg xalaat yooyu togg ko lañ cay toggeek la cay tibbee balaañ ko yóbbu fenn di ko voté danañ ko delloo si waat ca ñañ dajale woon ñu ci doon waxtaan ñu joxe waat ci seen xalaat ñu wàccee ko ci baas bi ñu joxe ci seen xalaat balaa moo yegg fi muy yegg ma ne ko de foofu lañ ci toll loolu tamit nag laa ci yëg ndax am na ci lu nekk ci projet de loi bi boo loo xam ne nii ba jant bi di fay ku mel ne man du ci mos ànd ma tuddal ko ci benn rek te benn boobu ba léegi jàpp naa ne ci li ci gën a tax ci li gën a tax ñi lànk projet bi te mooy majorité sëriñ daara yi rejeté ko mooy benn programme national boo xam ne nii ministère éducation lay bàyyeekoo ngir di joxe programme mu jàngale ci daara yi li ñuy tuddee albarnaamiju rasmi programme national nag bu officiel boo xam ne nii dafay bàyyeekoo ci ministère ñu koy jàngale ci daara yi te ñu ne bépp sëñ daara wala bépp daara da cee war a tënku bu loi bi jàllee loolu moom dañ koo xotti lakk ko sànni fële ku mel ne man rek su ma bokkuloon ci benn kuréelu sëñ daara ma yëg ne loolu ñu ngi koy bëgg a voté ci Sénégal fii laay toog ak feneen fu ma amee kàddu ak ñu ma mën a mobiliser te mën naa mobiliser nag ci waa daara ji am naa ci mag am ci waajur am ci kilifa yoo xam ne seen kàddu laay waxee su ma waxee kilifa yooyu ay junniy junniy topp seen ginnaaw te lu ma ci wax seen position la ba tax na point boobu moom ba jant bi fay jarul sax ñu ci jéem a avancé daara kenn mënu ko tëggal programme ci senegal kii daara bi ma xam ñu nekk ci daara xam ko ni ñuy jàngalee ci daara ci majalis ci téere laxdari yu ba ca Cheikhul Khalil topp ko ci matière yi nax wook aruut ak bayaan ak mantiq ak lépp sarf ak lépp ci matière yooyu li koy jàngale ci daara ba yegg ci tafsir alquranul karim ba yenn daara yi la ñuy jàngaat ci yeneen i matières yu ci dolleeku loolu ministère àttanul di tëgg programme boobu di ko jox waa daara loolu benn la ci am na ci yeneen yoo xam ne buñ ci tollee ñu ngi ciy waxtaan ak ñu ngi ko seqal waaye loolu rek laa ci wax journaliste bi te loolu mën naa ko wax fii pour ñëpp dégg ko su kenn bañul ñu defar daara yi ba mu ne boy jox leen droit yi nga xam ne moom lañ leen xañ comme yi ñu jox école bi waaye nag danañ leen jox seeni droit yi ñu leen xañ waaye day ànd ak nag ñu wax leen fi ngeen war a jaar déedéet ci wàllu njàngale moom euh, nañ def tibu daara yi wuute ñu bëgg a def franco arabe def ko ñooñu mën nañ leen tëggal programme xëy na waaye daara traditionnel yi forme ku mel ni man nga xam ne tuutal tuuti laa ci jàng ci daara yooyu noonu am ñu ma ci raw junni yoon daara jooju noonu le programme am gouvernement àttanu ko pour war koo segg pour jox ko waaw daara ji mag ñi dañoo xeex ba am seen liberté bopp samp seeni daara di jàngale njàngaleem lislaam pur et dur bu set wecc leer nañ waaw ñaareel na programme heure buñ ko defee loo xam ne nii lu officiel la ñoo koy tënk am na xalaat yuñ ciy duggee dugal ak xalaat yuñ ciy génnee Sénégal gi am na ci ñu fi dund ñoo xam ne gëmuñ tasawuf ñen ñi ñu ngi dund dañoo gëm tasawuf te daara yi noonu la séddale ko am na koo xam ne daaraam gëmul tasawuf am na koo xam ne daaraam dafa gëm tasawuf léegi kuy tënk programme bu officiel ci man côté nga koy tënk ndax danga naan nañ jàngale ñii jàngal ñee programme bi programme bële kon kay nekkatul loo xam ne lu officiel la lu jëm ci ñëpp loolu duñ ci guddal lool dañ doon yëgle rek bis bi pour ñu bàyyi ko xel xam ne jéego la boo xam ne nii incha allahu taala bu ñu doxalee nii jéego yi di waxtaan di ci boole ñiñ ci war a boole ñëpp benn coow mën naa bañ a jib solution tamit mën naa am ndax ñëpp solution lañuy wut su ko defee weesu weesu woon na ñu ko doon gis waaye bii ñu ngi ci biir ci invitation ak ci ànd ak ñoom ci liggéey bi ba fii ñu ci toll nii incha allahu taala luñ ci gis muy rafet tamit lu ñuy saluer la wax ko ca kaw lu ñu ci gis muy naga su dul noonu tamit dañ naan du nii bu beneen yoonee nañ ko jooyante nii baaxul am nañu liberté bu toll ni euh, lu baax moom alhamdulilah mën nañ ko wax ca kaw buñ gisee lu safaan wi tamit am nañ courage de dénoncer ko rawatina nag bu laalee daara nga xam ne loolu moom amuñ ci xarit amuñ ci soppe amuñ ci kenn loolu suñu deret la principe lañ ci am principe principe bi yëpp nag du suñu intérêt personnel jomb nañ ji wax ngir sunu intérêt personnel mais intérêt diine ji intérêt daara ji loolu moom intérêt bu taxawee alhamdulilah ñu ngi ci ginnaaw intérêt boobu lu ñu gis ne lu mën a màbb lool la danañ taxaw jëmmarloo ak loolu ba tax na ñu ngi ñaan yàlla mbooleem jéego yu état bi di dox di jëm ci daara yàlla doon li gën bu doonee li gën daara ji kenn du opposé wu ñëpp dañ ci ànd dox jëm ca kanam te loolu nag bokk na ci li leen ciy dimbale rawatina ñiy ñëw bees nii mooy jéego yu mel nii rek lu ñuy def ñu boole ci acteurs yëpp donte mënuñ matal ñëpp nag ndax daara bindoo noonu ci senegal ci yaatuwaay waaye am na ci ñoo xam ne nii bu ñu waxee ak ñoom ñooñu am na ñeneen ñu nekk ci seen ginnaaw ak ñu bokkul ca ña nekk ca kanam ñu am confiance ci ñoom ba nga xam ne lu ñu dëppoo dañuy gis ne du ngaañu daara waaye njëriñu daara lay doon yàlla yàlla defal na sutura defal leen ko. loolu mooy lu njëkk li ci ñamali gi